léegi ñun boulanger yi lan lañu suñ lan moo taxawaay si feebar bi ñu jàpp ne ñun li am solo mooy santé wu askan bi maanaam wér-gu-yaram askan bi dafa am solo ñun nag dañuy lu ñuy wax rek alerter ndaxte boo jàppee ni mburu boobu ñëw si boutique balaa muy yegg si boutique bi juróomi nit dana ko laal maanaam boulanger bi euh, panché bi mooy ki joxe mburu mi livreur bi wala koy dimbali ak boutiquier bi bu eggee ba pare yeneen juróom ba juróom-benn nit dañuy ñëw laal mburu mi bu ñu jënd beneen innocent ñëw fële jënd mburu boobu mu yóbbu donc loolu mun a nekk loraange te décret bi ñu wax nii 22 77 bu 30 décembre bi moom dafa aay yooyu yëpp ñun nag en tant que organisation nekk ci secteur bi euh, du ñu nangu gis nañu coronavirus bi ni mu ëppee ci jamono ji ni mu bëree ci monde bi donc moo tax ñuy invité acteurs yëpp ñu jël Nous wax mesures comme boulanger comme consommateur comme état pour ñu pour saafara mbir bu askan bi y a a jël une responsabilité aujourd'hui ak une responsabilité. yi nekk kenn yoon dem jënd mburu boulangerie donc nous avons invité boulanger sénégalais la première chose à faire d'un jënd sa mburu si boulangerie parce que risque faut que la a ndaxte benn nit moo koy laal te ñun aussi loolu lu am solo la. ñun boulanger yi ñu ngi leen di woo si respecté wu norme hygiène yi nga xam ne moom ngeen war a def matukaay yëpp pour jaay mburu mi dañoo bëgg képp kuy jaayati mburu si benn yi kay jaay mburu mi kay kay encaissé xaalis bi na wuute kay joxe mburu mi te kiy joxe mburu mi na jore tutu gel bi di ko def si raxas si loxo na ngeen am ay gants. da ngay am da ngay am ay gants ay gants yéen boulanger yi yéen jaaykat yi bu ngeen mënee war a sol masque sax ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen sol ko sol masque yi sol lépp loolu yi ngi koy woo euh, boulanger yi ñu jël seen matukaay yooyu yëpp FNBS ak RBS dañuy woo boulanger yi ni leen mbir mi sagam yéen a yóbbu mburu mi si si bitig yi dañu bëgg ngeen dakkal ko dakkal leen ko ba pare pour ngeen mën a jàppale état bi boulanger yi consommateurs yi si feebar bi donc ñun ñu ngi leen di ñaan boulanger yi à partir de lundi bu kenn jël mburu di ko dugal si benn boutique de quartier consommateurs yi jàpp leen ni ñàkk mburu mu mënu fee nekk danañ jël matukaay yëpp pour que ngeen am lu ñuy wax disponibilité mburu danañ def ay casque rapidement ba pare ministère bi sax anticipé na ndaxte def na sax mu ngi créé dans la semaine beneen site en ligne boo xam ni dana permettre nga toog sa kër ñu livrer la sa mburu